ñu ngi fi tay ci gouvernance sunung euh, fekk ci sunu mbokk serigne mohammed mustapha Ndaw serigne bi yabalon ñu tay fi ci gouverneur amu ni responsable bu toll ni mom di social warna naa ndimbal andil ko président de la république bi nga xamanteni ni mom la yan bi gëna dis diis tege ci mbagam tay ji te réew mi yaakar ko ci mu yëkkati won nak teranga bu toll ni di matériel bi ngeen di gis toll ci 3 millions boole ko enveloppe gu 3 millions bi mu toll ci 6 millions mu ni woon nañ ko yëkkati indi ko fii ci gouvernance jox ko monsieur le gouverneur Serigne Mouhamad Moustapha Ndaw ngir mu jotal ko président de la république mu dem ci askanu senegal jiitu ci nag loolu muy ñaan yàlla barke euh, alxuraan barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci dogalu borom bi ak rafetu xolu jullit ñi ak nit ñu baax ñi yàlla na tàbbi ci lii ba lépp nekk ak saafaraw ci àdduna bi yëpp waaye rawati Sénégal ji nga xamante ni nii ci lañ nekk di ci noyyoo ak fépp foo xam ni doomu Sénégal nekk na ci ci àdduna bi. ma di dellu si rek xanaa leen ñaan daal si ni ñu ko waxee sànq rek ñu fexe ba lépp loo xam ne digle nañ ko te léegi comme ni nga ko waxee ñëpp xam ko nag xale bu ndaw bi sax xam ne ni war a def ñu koy jëfee nag. si bëccëg bi ñu ngi constaté nit ñi ñu ngi dajaloo ba tey xeetu dajaloo bu nekk nag lañ bañ xeetu dajaloo bu nekk lañ bañ te ñu ngi constaté nit ñi ñu ngi dajaloo ba léegi. ñu dimbali ñu si wàññi dajaloo boobu ñuy def ñu dimbali ñu tamit si di takk masque bi parce jot na fi ne ni ku nekk booy génn ngay dem takk masque boo xoolee takk masque boole Babacar takk usine na ko defara mais bii tissu la boo xam ne da koy fóot di fóotaat am na sa produit boo xam ne boo demee defee journée bi mu yàgg nga bës ko si mu désinfecté ko nga mun a continuer waat sa masque donc moo war leen rek masque yomb na. bëgguñ di gendarme fu nekk muy topp ku nekk police di topp ku nekk bu yàggee dootul neex mais nag ku nekk na nekk gendarme boppam nag ku nekk na nekk policier boppam mooy li ma la wax sànq dinañ si yegg si ay mesures yoo xam ne bu boobaa dootul neex parce que bu yàggee di at gën a yàgg cas communautaire di gën a bëri dañuy xëy sa ba ne joxatuñ benn autorisation kenn circuler par exemple dama leen jox exemple mun na yegg di joxatuñ autorisation kenn circuler ko amul oto boo demee di nga toog. Hmm? bu wowa te bëgguñu yegg foofu mun na yegg bu mesure de confinement total xëy na mun nañu mun nañ bañ a yegg foofu mais nit ñi tamit confiner seen bopp confiner sa bopp mooy li xam ne da koy dox te du farata nga bàyyi ko toog grand place di bëlot wala di grand place di demi nga bàyyi ko dajaloo di football wala dajaloo di basket nga bàyyi ko voilà ku fexe koo xam ne mun nga bàyyi dem juma je pense que war nga mën a bàyyi football wala nga mën a bàyyi basket wala nga a bàyyi leneen ñu toog la boo demee bay génn ba bëgg a génn nag te mënoo ñàkk a génn nga takk sa masque vraiment loolu la ñuy digal nit ñi pour que ñu mën si jublu waaw yaakaar naa ne am na dëkk yoo xam ne xeex nañ ko ba gañe ko te yegguñ si confinement kon ñun tam yaakaar naa ne mun nañ ko xeex ba gañe ko te duñu yegg si confinement